chers amis internautes de euh, Pikine TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di amaat ak contentement di leen dalal ci seen revue de la semaine comme ni ma ko baaxoo di defee rek àjjuma bu jot ma defal leen turu actualité bi daal di leen koy indi euh, ci seen télé euh, Pikine TV studio Moustapha ma dooree li nga xamante rek moom moo revue bi ak rek njiitum réew mi Bassirou Diomaye Faye ma demoon ca Freetown ni ki démb mu doon amal li nga xamante ne rek moom moo di visitu ak président bi di bio ñu waxtaanee euh, ban yo nak pexé euh, lañu rek mëna a daal di euh, jaar ngir rek li nga ne modi coopération bi am ci ak Sénégal ak Sierra Leone ci estate House Nak ñaari njiitum réew yi daal nañu itamit li nga rek mom modi intégration ou région ouest africaine ak li nga rek mom la daal di Yu ñu nga xamantene mën nañu li nga rek mom modi réew yi nga ñoo fité fi ci ouest africaine njiitum rewmi nak gennam gi mi ngi dugg rek euh, ci cadre visite yi nga xamante rek daal dina ko euh, door ginnaaw mu jëlee fonction euh, ci boppu rew bu Sénégal daal dina dem nak fi nga xamante rek mom modi Mauritanie dem na itamit fi nga xamante rek mom modi Gambie Côte d'Ivoire Nigeria dem na itamit Ghana waye tamit Cap Vert ak Mali Burkina Faso niki ki démb mu daal di dem fi nga xamante rek mom modi Sierra Leone bu ñu joge ci lolu daal di àddu wax ci li nga xamante mom modi premier téeméer baril de pétrole bi nga xamantene rek Sénégal euh, daal dina ko rek exploité njiitum réew mi basirou Diomaye fay jot na li nga xamantene rek mom modi échantillon euh, pétrole brut euh, ba rek jëk a génn foofu champ pétrolier bu Sangomar buñu ñu sukkandikoo nag ci kàddu njitum réew mi Bassirou Diomaye Faye moom nak Sénégal daal dina intégré li nga xamantene mom modi groupe dëkk yi nga xamantene ñom ñoo daal di produire pétrole njitum réew mi daal dina yow tamit réaffirmé li nga xamantene ne moom moo engagement wam euh, ci amal gestion bu euh, transparente ak équitable jëm ci ressources euh, naturelles yi naka noonu rek daal dina félicité gouvernement bu Sénégal peuple sénégalais ñi nga xamante ñom ñoom di compagnie Woodside énergie nga xamante rek ñom ñoo di exploité lii di pétrole bi daal ci toftal nak ay ñaan ñu recevoir pétrole bi ci jamm mu fiti di law fi ci réew mi bu ñu jugee ci lolu nak bu ñu sukkandikoo ci ki nga estimation wu site euh, bu euh, Sangomar dina génn nak lu tollu ci 15 euh, milliards de dollars ci revenu cumulé bu Grand Tortue nak bu Armegum dina génne lu tollu rek ci 24 milliards de dollars dina di répartition wu ak li nga xamantene nak nag encadrement ou recette yooyu nga xamantene nak ñom ñoo fay li nga xamantene ne article 2029 bu 19 avril 2022 moko rek dal di teunk dal ci li nga xamantene rek moom ñetti patch euh, lu ci melni budget euh, général euh, fond intergénérationnel ak li nga xamantene rek mom modi fond de stabilisation kon nak li nga xamantene mom modi recette yi nga xamantene ñoy ñooy ci pétrole bek li nga xamantene mom modi moo sunu ressources naturelles yi rek lañ ko nar a utiliser ñu daal addu tamit wax ci leneen muy visite pédagogique bi nga xamantene école Kër mam Diarra nek fi ci Pikine Aïnoumane 3 daal di rek amal niki mardi bi ñu génn fofu ci palais euh, de la république ginnaaw nak ab agenda bu chargé euh, bu njitum réew mi Bassirou Diomaye Faye mom nak daal dina euh, ci tawam dal di koy rek consacré xalé yoy nga xamantene rek ñom ñoo fa di def li nga visite pédagogique mon nak daal dina leen li nga xamantene mom modi importance Topoto suñu sunu environnement waye tamit saxal ak topoto li nga xamantene rek mom modi ay garap pour protéger sunu environnement waye tamit waxna qui ci exploitant ressource pétrole xamante rek dal dina tambali comme ni ma ko waxee sànq euh, foofu ca euh, pointe bu euh, Sangomar ma dal di taxaw ci li nga xamante rek mom modi visite pédagogique nga xamante ne fan yi ñu ngi koy gis élèves yi amal fofu ca palais de la république muy nak acte bo xamante dañ koy rafetlu di ko saluer ndax nak yoon la suñu ndaw yi ñu dal leen di wan yenen aspect wu suñu rew lu ludul rek di leen wan nga xamante mom modi ay parc en ak hamul xamul donc di leen yobbu ñuy xol li nga xamante ñom ñoo di suñu ay institution réew dafay baax ndax nag dina def ci ñoom ambition bu xëy ndax nag ndaw yi ñoom ñooy doon li nga xamante ne rek moom moo di euh, magu ëllëg waaye di leen fàttali tamit fii ci Pikine amnañ fi li nga xamanteni rek mom modi site bu technopole day baax tamit ñuy jël xalé yi di leen fa yóbbu ñuy def li nga xamanteni rek mom modi visite ndax site bu am solo la bu am importance Lambo ak yu am ay solo donc on baxna xalé yi diko euh, découvrir bu ñu jógee lolu ñu daldi wax nak ci ñeegu euh, dundu gi nga rek ministre bi euh, premier ministre bi di Ousmane Sonko waxon nako rek ci conseil des ministres bu mercredi bi ñu daal mu rek daldi nañu fësal ñeeg yi nga xamanteni rek daldi nañ koy

août bi nga xamante ne rek ci la ñu daal di jëm li nga xamante ne tamit moom moo di diwlin gi daal di nañ ciy wàññi lu toll ci 100 euh, francs euh, li nga xamante ne wàññi lu toll ci euh, francs waaye nag ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo di boutique yi dañuy attiré foofu seen attention 10 francs yi nga xamante ne moom moo di des nañ koy wecc ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di sénégalais ndax tàmm nañ nag weccet bu sew moom duñ koy faral di joxe nañ ci teg rek li nga xamante ne rek moom moo di sunu ay fula ndax nag luñ lu wàññil la kon nag dañ a

Euh, ak gouvernement bi nag da koo rek accompagner ak li nga xamante ne moom moo di ay mesures ngir garantir li nga xamante ne moom moo di respect wu rek moom la ñu daal di homologué ci yooyu nag bokk na ci euh, ñu taxawal ab boutique euh, témoin comme rek ni ñu ko defee woon ci ginnaaw indépendance bi taxawal fi li nga xamante ne rek moom moo di ay sonoris boutique yooyu nag day permettre rek à que ñi nga xamante ne ñoom ñoo di boutiquier yi ñu mën a respecter mooy prix yi nga xamante ne moom la ñu daal di teg ko ci marché bi tamit euh, day permettre aussi ñu daal lutter contre li nga xamantene rek mom modi chômage bi ndax ci boutique yooyu dinañ jël ay ndaw ak ay jigen euh, daal di leen koy jox mom kon nak mu mel rek day régler walé li nga xamantene mom modi euh, problème emploi emploi ou jeunes yi ci li nga xamante tamit mom modi prix yi nga xamantene ne daal koy fësal niki demb prix gi tamit entré en vigueur ndax nak dañuy amal app waxtaan ci semaine bi nga xamantene rek ci lañu ñu daal di jëm ginnaw lolu nak ci le prix yi di rek dugg ci euh, marché bi ñu daal di desandi euh, ci wàññi ñeegu euh, dundu gi cette fois ci ak li nga xamantene rek mom modi accès à l'internet gis nañu rek niki demb gouvernement bu yees bi daal di présenté ay mesures ngir rek daal di woyofal li nga xamantene mom modi charge financière ménage yi ci mesures nak nag ci li nga xamantene rek moy coût d'accès à l'internet comme ni ma ko du ko rek ndax nak ginnaw appel bi nga xamantene rek gouvernement bi daal dina koy def ci opérateur téléphonique yi nga xamantene Euh, ñoo daal di nekk fii ci réew mi muy euh, Orange Expresso ak Free euh, tarif yi nag dinañ ko rek Euh, ñoom nag euh, daal dinañ nangu rek wàññi li nga xamante ne rek moom moo di euh, tarif yi ngir rek service yi gën a rek mën a daal di jàppandal ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo di Sonatel Orange bokk na ci rek ñi nga xamante ne ñoom ñoo njëkk a li nga xamante ne moom moo di beesu tarif ngir rek ñu daal di am accès ci li nga xamante ne moom moo di technologie 4G ndax nag xam nañ ne fi ñu toll nii jamono ji internet nekkatul loo xamante ne luxe la mais loo xamante ne nécessité la ci doomu aadama yëpp ndax nag ñu bëri dañ ci ci euh, utiliser ngir euh, def li nga xamantene mom modi sen euh, liguey gis nañ vente en ligne yeeg yu mel donc buñu ñu li nga xamantene rek mom modi di coût internet bi dina am solo bu baax baax ñu daldi rek wax ci lenen jëm ci li nga xamantene mom modi économique ak recommandation bi nga xamantene banque mondiale daal dina def ci état bu Sénégal document bi nak def recommandation bi institut financier mo ngi ko fësal mercredi bi nga xamantene rek ci lañu daldi genn doon wax ci situation économique euh, bu réew mi ci atum 2023 euh, euh, ci rapport bi nak banque mondiale mo ngay rek conseiller état bu Sénégal à ce que rek mu daal veiller ci yok li nga xamantene mom modi recette fiscale yi ak li nga xamantene ne koy utiliser ci li nga xamantene mom modi réduire les inégalités sociales bu ñu jugee ci lolu daal wax ci audience ba nga xamantene rek mo amone ci palais de la république ginnaw ay fan rek ñu daal di li nga xamantene rek mom modi tabaski njiitum réew mi rek dalal imam yeeg ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ulema yi euh, ca palais euh, de la république euh, nitu diine yi nag daal dinañu rafetlu waxtaan gu am solo ki nga xamante ne rek daal dinañ koy waxtaan ak njiitum réew mi Bassirou Diomaye Faye ba tax rek ñii di ligue des imams association des ulémas ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di rassemblement islamique daal dinañu rek soobu ci rek gunge ki nga xamante ne rek moom moo di njiitum réew mi jëm ci jàmmi réew mi ñu ñu des ba tey ci li nga xamante ne rek moom moo di tabaski bi cette fois ci nag ak Euh, ñi nga xamantene mom modi assemblée nationale wax ci euh, député bi nga xamantene mom modi euh, Guy Marius Sagna mom nak dafa rejeter li nga xamantene rek mom modi enveloppe bu tollu ci 200 000 francs ci sunu ay copar yi nga xamantene rek mom lañuy jox député yi di len ko jappalé ci tabaski bi mom nak néna c'est incohérent muy daal rek jot xaliss ci assemblée bo xamantene de rek dafa bañ représenter ak rek appuyer ñi nga xamantene mom modi doomu ci commission paddock waaye tamit chargé wu contrôle ak vérification wu titre ak occupation ci ancien wak nouvelle euh, dépendance bu euh, domaine euh, public ci région bu Dakar bu ñu du ci kàddu ki nga xamante ne rek moom moo Guy Marie Sagna mon nag assemblée nationale dañu war a jàppale liggéey katu fera nga xamantene rek tok nañ lu tollu ci fukki weer jotuñu li nga xamantene mom modi a seni ay payor jàppale tamit ñi nga xamantene mom modi population bu département bu Sarayak ña nek ci

ko euh, tantôt ak député bi nga xamante rek mom modi rue euh, euh, Marie Sagna ndax nak fi ci diwanu Pikine le maire Amadou Diara dal dina rek jàppale 18 agents wu ñi nga xamante rek ño nek ci Euh, agent wu ñi nga xamante ne ñoo nekk fii ci euh, Fera Pikine euh, Nord daal dina leen jox kenn ku ci nekk rek enveloppe bu tollu ci cent mille francs ci sunu ay koppar mu toll ci 1 million 800000 francs yoo xamante ne rek maire bi Amadou Diarra daal dina koy déployer ngir accompagner ñi nga xamante ne moom moo di yooyu les agent ci feetu tabaski bi nga xamante ne rek ci laa ñu daal di jëm ndax nag xam nañ ne bu ñu tolloo ci jamono ji ki képp koo xamante ne rek dafa yore famille day soxla li nga xamante ne rek moom moo di salaire ndax nag ci feet gi ñu jëm euh, dafay laaj tuuti moyen donc nag bu fekkee da nga leen privé euh, li nga xamante ne moom moo di ay seen salaire day nekk loo xamante ne rek day xaw a daal di tar ci euh, yooyu les borom kër ci yooyu les borom famille donc nag ci soutien bi nga xamante ne gis nañ ne nit ñi ñu ngi leen koy soutenir nekk na loo xamante ne ñu ngi koy rafetlu bu a baax waaye nag bu leen jéemee rek leen li nga xamante ne tamit moom moo di seen problème ba ñu jot seen ay payoor day nekk rek li nga xamante ne moom moo daal di gën bu ñu jugee ci loolu ñu daal di àddu wax ci ministre conseiller bi kii di Cheikh Oumar euh, Diagne moom nag daal dina wax ci problème mu dette fiscale yi nga xamante ne patron de presse yi euh, daal dinañ koy amee moom nag jotul may dara ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di euh, patron de presse yi ndax nag nee na ñi nga xamante ne ñoom ñoo di patron de presse bu fekkee dañuy laaj li nga xamante ne moom moo di pardon ci dette fiscale yi nga xamante ne dañ ko amee ci anam goo xamante ne menuisier yi ñoom ñi ngi fay seen impôt ñi nga xamante ne ñoom ñooy taaba taaba ñi ngi fay seen impôt beneen secteur boo xamante ne rek day yëngu impo nee na nag loolu dafa nekk loo xamante ne rek lu ñu mënta euh, nangu la mu teg ca rek naan amul benn euh, kenn amul droit daal di baale Euh, li nga xamante ne rek moom moo di impôt même njiitum réew mi sax amul euh, droit daal di baale li nga xamante ne rek moom moo di impôt donc nag nee na ñi nga xamante ne ñoom ñoo di patron de presse yi euh, nañu fay dette bi nga xamante ne rek moom la ñu daal di amee mu teg ci rek naan patron de presse yi dañu rek dañuy dagg li nga xamante ne rek moom moo di ci payooru seen employé lii di impôt waaye nag bu ñu paree duñ ko verser li nga xamante ne rek moom moo di état waaye tamit dañuy jël li nga xamante ne moom moo di ay TVA ci publicité yi nga xamante rek

employé mi ne leen nag avance tabaski bi nga xamante ne rek dañ ko daan joxe ren duñ ko mën a joxe di ko waral rek moom mooy problème financier bi nga xamante ne rek moom la ñu nekk di dund ndax nag dañoo bloqué li nga xamante ne rek moom moo di seen compte ci ay dette yoo xamante ne rek dañ koo am jëm ci wàllum impôt ci atum 2016 jàpp 2018 ñu ngi dégg tamit xibaar bu ñu naan rek RTS tamit dañu rek daal di bloqué ay compte am naam sax dégg nañ ki nga xamante ne rek moom moo di directeur ministère bu yes bi ne jotul ben notification bu wane rek ñom euh, dañu bloqué euh, sen compte muy nak xibaar bo xamante rek dinañ leen ko daldi topal indil leen ko fi ci sen télé Pikine TV ñu daldi add wax ci li nga xamante mom modi convention des jeunes reporters même nak daldi nañu fësal ak communiqué ginaaw rek ba média ak groupe Walfadjiri waxee ni rek duñu mëna a joxe li nga xamante mom modi avance tabaski ndax nak seen ay difficultés financières convention bi nak ñu ngi ñaawlu li nga xamante ne euh, euh, patron de presse entreprise de presse yi nga xamante mom lañuy la euh, ci ginnaaw impôt yi nga xamante dañ ko am muy obligation légale nga xamante moy verser seen i ay employé li nga xamante rek mom la ñu ak ñom muy seen ay payor ñom nak daal dinañu li nga rek mom modi disposition bu au droit OHADA en particulier li nga xamante rek mom modi code procédure collective bu yi wax ni rek bép entreprise bo xamante mënatul honorer li nga xamantene rek mom ay obligation euh, ci euh, li nga xamantene mom la amel bor wala ci nga xamantene rek ñom ñoo di ay employé euh, dañ ko rek soumettre ci li nga xamantene mom procédure de redressement judiciaire wala rek ñu daal di liquider li nga xamantene ne di ay bien wam ba tax na rek ñuy sàkk ci autorité yi nga xamantene ñom ñoom ñoo fi nekk ñu daal di taxawal ci respect wu strict bu code de la presse jëm ci li nga xamantene mom gouvernance transparente des entreprises de presse convention des jeunes reporters nak ñu ngi patron de presse

ñu wax ci li nga xamantene mom modi chauffeur bi di ibrahim euh, Fall mi nga xamantene chinois yi euh, dañ ko euh, ICS bu taiba ande ci rek ak ben collègue sénégalais gendarmerie nak daal di na rek tek loxo ginnaw rek fa descente mardi ñaari chinois sen interprète daal di nañu len placé sous mandat de dépôt mercredi biñu ñu ci xibaar yi nga ne ci jot mise en cause yi dinañu euh, jugé mercredi 26 juin ci tribunal bu euh, Tiwawan ñu daal di wax ci li nga xamantene rek mom modi euh, problème litige foncier fi ci diwaanu Pikine Nord nga xamantene ne fan yëpp ñu ngi koy dégg ak ki nga xamantene ñom ñoom noo di sàmm moomoo li Pikine Nord ñi wax rek dafa am bradage foncier fofu ci site bu Ndiassane Tir le maire Amadou Diara nak daal dina ci indi ay leeral néna nak site bi di Ndiassane Tir amul bradage amul tamit li nga xamantene mom modi litige religieux te euh, ñi nga xamante ne ñoo nek fofu euh, naan sam euh, momelu Pikine Nord amul kenn ko rek mi ngi dëkk ci quartier bu Ndiassane mu ceg ci naan nak li def fofu du leen rek luddul projet de construction de nouveau quartier ñu dal di koy tuddee tuddee li nga xamante rek mom modi quartier éco muy quartier yo xamante rek day wuyu ci bu développement durable verdure ak environnement cadre de vie bu jaar yoon wara am li nga rek mom modi néna maison de la la femme euh, nee na tamit euh, ci euh, site boobu dinañ fa def li nga centre commercial bu 8 étage waye tamit amna 150 mètres carrés yo xamantene rek handicapé yi nga xamantene ñom ñoom ñoo ci Pikine Nord ñom ñoko daldi mom di moom waaye tamit dinañ fa tabax li nga xamantene mom modi maison artisanale waye tamit benn yo El Hadji Oumar Foutiyou Tall waye tamit dinañ fa def li nga xamantene rek mom modi manège bu ñu ci cadre ki nga xamantene mom modi maire bu Pikine Nord di Amadou Diakhar nee na tamit recettes yi nga xamante ne rek ñoo fa uh, nar a tukkee dañ cee bëgg jël daal di pavé li nga xamante ne rek moom moo di uh, Pikine Nord yëpp ndax nag nee na seen bëbët mooy Pikine Nord sans sable waaye tamit nee na dina relever li nga xamante ne rek moom moo di uh, budget bu Pikine Nord waaye tamit nee na ci projet boobu dinañ ci désencombré li nga xamante ne rek moom moo di axe tali bu mag bi ndax nag nee na gis nañ bu baax a baax li nga xamante ne moom moo problème bi am ci axe tali bu mag bekk ni mu xatee waaye nag nee na comme ay père de famille lañ duñ leen mën a yëkkati rek

nee na nag hangar bi nga xamante ne mi ngi koy dégg nee na foofu kenn tabaxu fa hangar te hangar du fa rek daa di am ñu daal di rek wax tamit ba tey euh, ci li nga xamante ne moom moo di euh, tabaski bi ndax nag def nañ ab doxantu fi nga xamante ne euh, moom moo di gaar bu Pikine muy gaar bu Bon Maraîcher ñu gis ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy di clients yi nga xamante ne ñoo fas yéenee dem tabaski ji seen dëkk ñoom nag li ñuy ñaawri rek mooy yokkub njëgu li nga xamante ne moom moo di transport bi nee nañ ndax dañoo daal di doubler li nga xamante ne rek moom moo di transport bi waaye tamit li nga xamante moom moo di bagage yi nga xamante dañ koy yóbbu tamit dañoo yokk bu baax a baax li nga xamante rek moom moo di euh, paas bi ba tax ñuy sàkku ci autorités yi ñu daal di euh, li nga xamante moom moo euh, transport bi ba yu ni mel dootul am ndax nag nee na koy faral di gis dafa bëri loolu saa événement amee rek dañuy gis dañuy yokk paas yi ci loo xamante ne rek daa ko teg fenn ñu yaakaar ne ñi nga xamante rek ñoom ñooy autorité compétent yi dinañ leen dégg waaye tamit dinañ ci indi jooyeet yi ñu daal wax ci li nga xamante rek moom moo PSC euh, Sadio Mané nak dafa rek daal di critiquer li nga xamantene rek mom modi euh, système de jeu bu Aliou Cissé teg rek muy euh, wax ni rek buñu ñu ñu daat ñuy bayyi xel dañu wara changer li nga xamantene rek mom modi suñu système ndax nak jëm nañu ay combinaison yu bari yo xamantene ne di nañ koy tek ci match mujjul ba ci éliminatoire coupe du monde 2026 Sénégal daal na rek jouer li nga xamantene mom modi dimanche buñu muju buñu euh, lii di euh, quatrième journée euh, bu éliminatoire coupe du monde 2026 forfait Nouakchott moom ak Mauritanie mu daal di koy daan benn bal ci dara mu nekk nak match bu metti Sénégal amoon na difficulté bu baax Girdi baax ngir di daal di gagné équipe bi di Mauritanie ñu daal di victoire bi permettre les ñu daal di taxawaat bu baax a ci li nga xamante rek moom compétition bi jëm ci éliminatoire coupe du monde 2026 fi lay jaaree daal di yëkkati li nga xamante ne nag di bi di leen sant bu baax di leen gërëm ci li nga xamante ne moom moo di teewlu beeg déglu bi di leen joxaat dig daje vendredi prochain ci seen beneen euh, revue euh, de la semaine di remercier bu baax a baax samay technicien ku ci mel ni Lamine ak euh, sëñ Xaadim di leen ñaanal nag tabaski jàmm di leen baalu ak waaye tamit di leen baal ak di leen ñaanal tabaski boo xamante ne rek day daal di mucc ay ñu ko ci jàmm génn ci jàmm lu waaye nag bu ci kenn am problème daa ñu ngi ñaanal borom kër yëpp ñu daal di am vendredi prochain di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen